Ah, d'abord dañu am mbégte lool ñëw ci teewee ñaar fukkeelu juróom ñaar fukkeel ak juróom euh, assemblée générale lu anniversaire administrateur civil yi muy corps bu am solo ñu wax ku ci suñu kàllaama ci réew mi ndax administration bi euh, état bi daanaka fonctionnement am ci seen i mbagg la taxaw ndax ñoom euh, daanaka tey ministère boo ci dem li ca bari boo fekkul ministre ba nekk administrateur civil da nga fekk secrétaire général ba wala directeur de cabinet ba wala yenn directeur nekk administrateur civil amul fenn fu ñu nekkul rawatina nag ministère de l'intérieur nga xam ne tey daanaka bu ñu ne ñett fukki administrateur civil fonk formé nañ leen ñi ngi liggéey ñett yi au moins ñun la ñu nekk diggante préfet gouverneur ak seen i adjoint ak diggante ñi nekk ci administration centrale bi nga xam moo nekk ci ñun boo génnee ci ñun nga dem euh, finance li ci ëppale ba administrateur mooy ministère bi nga xam ne moo ci ëpp administrateur civil à donc loolu rek taxoon na ñu war a mën a ñëw fii donc loolu moom ñu tax ñu ñëw fii kontaan loolu ci seen taxawaay seen taxawaay ci réew mi. loolu d' abord administrateur civil dara mosu a tere politique wax naa léegi ne administrateur civil yoo xam ne ràññeeku nañ te nit ñi xam leen président Abdou Diouf administrateur civil la président euh, Moustapha Niasse administrateur civil la donc seen fonction yi. Euh, maanaam euh, jàng boobu ñu jàng ak diplôme boobu ñu am tarewul la ñu ma def politique waaw wax nañu ay doléance effectivement bon c'est normal mu ngi liggéey léegi liggéey bi nee nañ euh, amuñ indemnité yoo xam ne dañ ko lié ak seen statut corps bi ñu ne donc loolu musta am boobu ba ni tamit comme ni wax rek ñun en tout cas dañ leen jàppale pour que lépp loo xam ne li def nañ ko comme revendication parce que xam nañ seen gëd waaye aussi ñoom ñii xam nañ bi fi président Macky Sall ñëwee ba léegi li nga xam ne lii am nañ ko ci considération am nañ ko ci avantage ci seen liggéey. waa Saly dana am euh, commissariat de police euh, xaatim nañ kayit bi ba pare donc normalement affectation bi rek moo de bâtiment presque pare na war naa recevoir maire bi semaine bii di ñëw suñu paree rek ñu xool ci fin octobre wala novembre naka am naka la commissariat mën a ñëwee mais du am benn problème a gendarmerie parce loolu yàgg naa am.